woman of maanaa hard worker woman big woman big man jeeg bu am personnalité bu am dignité lu la lew la dangaa ñëw Amérique am jom am fula am fayda jàng diplômé yor say société am boo sa tubaab yi laaw la cat laaw ah, ah, la cat ci sama waa xoolal lii xoolal lii wekki couronne bi daamine sa sa bi or du daamine de sama waa laaw la cat laaw la cat laaw la bi daamine sa sa bi or du daamine de sama waa ji laaw la cat laaw la cat laay laay la laa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 daa ba boo nekkee milliardaire ñëpp nekk milliardaire kenn moom siyaatoon am nañu biir géet Sénégal am moo géet Gambi mbaalo géet siyaatoon biir géet Sénégal moo géet Gambia mbaalo géet yow boo nekkee milliardaire ñëpp nekk milliardaire yow doo may ay géwél da faj soxla géwél yi yow doo ñu may da faj sañuy soxla kenn du yaay maye te doo ko yëg ak jay na ba daabo yéen a yëkkati alal te du ngeen ko yëgal seen yaram kenn du man de du ngeen ma may da ngeen di faj sama soxla. ndeysaan ndeysaan xoola lamba xoola lamba laay laay la laa ana kabara bafata waaw waaw waaw